alors euh, ci noonu sax ci combat boobu nit dof mu mel ni Sénégal nag jamono ji benn ouf de soulagement lañ fi nemmeeku une décrispation euh, ñuy libéré jamono ji détenu politique yi yow nga bukkoon kenn ci ñooñu ñu libéré la yaakaar naa y a deux trois jours mm-hmm. euh, naka nga jàngatee te lu ni mel en tant que détenu boo xamante ni duggoon nga ci kaso bi génn duggaat tey jii ñu libéré la waa sant yàlla sant yàlla bu baax a baax Euh, parce que suñu borom defoon nañu sutura aussi mhm. ñu dugg fa si euh, ngor ak dignité mhm. ak euh, sentiment de fierté de combatre une cause noble mhm. xeex pour suñu drapeau xeex pour jële fi injustice donc dem nañ fa aussi yàlla defal ñu sutura amuñu fa benn problème ak toutes les difficultés yi prison yëpp am aussi yàlla defal nañu sutura ñu dugg dund ko ci ci jom dund ko ci dignité <clears throat> Eh, génnaat si jàmm duñ def loolu sant yàlla. Mhm. sant aussi sunu famille. Mhm. Ah, suma yaay maa ngi koy nuyu bu baax suma famille bi yëpp suma côté papa ak yaay. Mhm. sama mbokk proche yëpp ak eh, ak ñu may liggéeyandoo mais proche de de toute façon. Euh, mënu ma leen lim mais de manière générale tous les sénégalais épris de justice. ñi nga xamante si ni ñoom seen kàddu si ñoom la doon commencé. ku mel ne yow ak yeneen journaliste ak euh, d'autres personnes yoo xam ne ci biir prison bi ñu ngi doon jàkkaarloog ñoom di leen xool ñuy soulager di ñu fàttaliku. Mm-hmm. à chaque fois donc ñooñu ñëpp la ñuy boole gërëm. Mm-hmm. ak képp koo xamante si ni aussi euh, ñaan nga si dox nga si. Mm-hmm. jooylu nga ko méttitlu nga ko. et euh, du ñu def lu sant ñëpp gërëm ñëpp. et puis di kontaan aussi si atmosphère bi nii. de de voir des Sénégalais heureux parce que ça fait longtemps. ñu gis beaucoup de crispation beaucoup de de mal ay nit yu malheureux un mhm. sentiment de colissement le Sénégal les gens sont malheureux mhm. suñu gisee ces euh, scènes de de joie nit ñi kontaan des moments qui retrouvent euh, les enfants accolades xam nga mhm. des des des larmes de joie xam nga tout ça Sénégal bi lañ bëgg Sénégal bi lañ yéene suñu Sénégal lii mooy continuer lii mooy dox donc ñu def lu dul kontaan si et di ñaan aussi mu jëm kanam euh, parce que lii la en euh, fait on est en de voir du sénégalais prototype sénégalais mooy ku am yërmande la ku bañ injustice la ku bëgg lu rafet la ku am ku am ndeysaan la koo xamante si ni oh, tu vois tous les yi nga xam ne si ne dañu xawoon neutre ci affaire yi ci mm-hmm. waa que ni ñoom sax ñoo gën a regretter un peu de ne pas avoir mené le combat de ne pas avoir soutenu ses ses ses tu sais que ni c' est euh, le propre même loolu mooy fond wu sénégalais. Mhm. après bon politique ak parparloo ak yenn ak nax yi ñu leen di nax si yenn médias yi. Mhm. demoon na ba muur le vrai sénégalais sa vraie nature. donc mhm. au final tu te dis que ni non dëkk bi nii sénégalais lii. alors que c' est pas la vraie nature du sénégalais mooy c' quelqu'un de ku baax la. quelqu'un de de de de de pacifiste c' quelqu'un de vraiment. Euh, voilà d'humain. et man loolu laa bëgg gis quoi te loolu laa gis mooy je vois vraiment. Euh, nit yu regretté. je vois nit yoo xamante si ni ñu ngi euh, ñu ngi solidariser wu ñu ngi ñu ngi ñu ngi am compassion. Mm-hmm. e ñu ngi kontaan surtout on voit que les gens sont contents te ku si kontaan aussi ce problème on voit que y a certaines <laughs> personnes yu def yenn e détails. Mm-hmm. et je pense que c'est même pas le moment c'est très très très. Euh, maladroit de certains euh, certaines personnes yi nga xamante si ni politique wala ay ay ay ay euh, ay yenn nu mu tudd ay yenn calcul tax na ñoom mënuñu heureux c'est-à-dire instant bi nii jamonoy kontaan la jamonoy gis ay say mbokk jullit say mbokk sénégalais yu mhm. doon dund benn injustice bu tar mhm. certains ont perdu leur parents mhm. certains par par xaw ma lan euh, manque de xaw ma lan seen ay soxna ñu ngi doon avorté ndax stress bu ñu doon dund tout ce malheur là boo gisee tey ñun la ñu ngi koy dindi mu ngi deñ waroo si am benn kàddu bu dul kàddu sant kàddu gërëm ak kàddu encouragé pour que mu aller de l'avant donc à tous ces bi ñuy wane rek leur vrai visage mhm. ak euh, fi leen politique toll ak fi leen euh, mhm. leurs intérêts personnels toll donc mhm. euh, donc mais le plus le plus important mooy la majorité des Sénégalais cette majorité gis nañ que ni ils sont très contents mhm. gis euh, ces enfants qui sortent de prison gis que ni nit ñi ngi ñu ngi recommencé waat di am mhm. un peu ce sentiment de de bonheur ce sentiment de de fierté d'être Sénégalais tout mhm. ça et c'est important c'est tous les Sénégalais sont contents mais vous en tant que euh, détenu naka nga yëgee d'abord nouvelle que dañ leen di libérer bi ngeen ko yëgee ban sentiment la def ci yéen ak naka lañ leen annoncé votre libération bon ñu ngi doon am quand même un peu euh, ay euh, indice bu mhm. doon dégg kii dem na fii kii bëgg na lii ba bi ñuy dégg ne président dafa bëgg a décrisper un peu euh, l'espace euh, politique et tout ça donc nous amoon nañ si ay xalaat comme quoi peut-être ça va découler à une libération massive des détenus et tout ça doon nañ ko xalaat quand même mais amuñ ci woon quand même benn certitude mhm. ni ñu ko dundee loolu la après satisfaction oui parce que on est détenu arbitrairement mhm. defuñu dara man ñi ma doon gis Diop mi man du ma bàyyi ma fenn ñoo fa nekk ndoo woon booy ñu doon gis ak ñi ñu nettali seen histoire yëpp xamoon nañ que ni defuñu dara en prison mm-hmm. donc buñ leen dee génne duñu mën lu dul euh, lu dul déjà kontaan si mm-hmm. et puis euh, et puis euh, voilà quoi d'accord mm. ouais. ngi noonu ñu kontaan ci yaakaar naa seen